waa ñu jàll ci campagne agricole bi ci am campagne agricole 2019 bi tamit xam nga tamit ne yënga yëngatu na fii trop ci wàllum euh, gerte gi waaw nguurum Sénégal euh, fixé deux cent dix francs baykat yi neneen duñ ci dal euh, chinois yi ñëw à la rescousse yow ban jàngat nga am ci boobu le mbir est-ce baykat yi nag benn côté nag ñoom nekkuñ di défier état déjà dañ leen jox dañ leen subventionné jox leen seen ay engrais jox leen seen lépp non il y franctimisation et une bougagélisation ah. des semences de notre pays bon si naka noonu bindal franctimisation comme franctimis franctimisation loolu yaa ko inventé bindal franctimisation franctimisation léegi franctimisation moom noo koy définir mooy jaay bon yi d'une manière fictive ah. cest à ñu jox la ay bon nga jaay ko ok comme ni ñu defar tànk timis defal ko permis d' exploration ne ko léegi demal exploité fii mu jël këyit yi dem jaay. ok. bougazélisation bi. bougazélisation. c' sur la base du faux si la ñu fayee ñi nga xamante ni ñoo doon ñoo joxe kii bi. ok. loolu moo am ci semence yi. ok. moom la Cissé loo doon wax. donc euh, baykat yu waroon jot. jotul jotuñu dañuy déglu moo tax ma wax lii rek. kon loolu moo tax kay ñoom su leen neexee ñu dem jaay. non lu leen neex. wax ma non xam nga xam nga xam nga xam dafa am lu ñuy wax dippa. dippa gis nga li am nii. Mm. dafa am ci suukar si importation suukar si. ok cest ñëw yow tey ma jox la bon ne la am nga droit indi 5000 tonnes. Mm. bon boobu ma la jox moom la ñuy wax ne da ngay dem ci hôtel yi jaay ko. te oo benn commerçant ne ko am naa benn bon kaama jaay la ko nga jël bon bi jox ko kooku jaay ko. jënd ko léegi bu ko defee moom mu dem importer ji suukar parce que dafa am moom la ñuy wax tipa. yooyu moo am Sénégal. kon béykat yi daal ñu sont ils sont dans wax la ils sont non ils le droit parce que mais ñoom ñoom ñoom état moo leen war a sécuriser. Mhm. ce n'est pas les chinois. c'est l'état qui devait les sécuriser. mais waaye tamit mais l'état ne l'a pas bu ñu toppee di jaayee chinois yi tamit. Sonacos mais waaw mais waaw mais xaaral wax la foofu d'abord Sonacos Sonacos mënul. bu fàtte ne dañ ko jëloon ci Ali Jaber hmm. biñ ko jëlee ba bari ci Ali ci Ali ba léegi ba Ali jox leen ay milliards da nga gis Sonacos ko déedéet. depuis bi ñu ko récupéré ci kooku ba léegi. déedéet au contraire dañu jël seen i immeuble sax di ko di ko jaay. Hmm. pour fay ay bor. on demande ren Sénégal xam ñaata lañu laaj. Hmm. un million cinq cent mille tonnes. pour la. ñii ils ont la tentafrénie des chiffres c'est-à-dire nax sénégalais yi rek la ñuy def ci ay chiffres ci ay wax yoo xamante ni ñu ko ci dëgg fen nguur gi man mosuma gis nguur gu mel nii ah man mosuma gis nguur gu mën a jaxasee nii di nas di nax askan wi nii man mosuma ko gis man. waaw comment bindal ne. un million cinq cent mille tonnes la wax ne moom la ñu récolté. un million cinq cent mille tonnes waaw ñoom de loolu la wax. waaw pour ëllëg a tax. bis boo gisee ministre bi dégg nga. million cinq cent mille tonnes. xam nga huiliers yi ñaata lañ soxla. huiliers xam nga huiliers yi mooy ñan. waaw ñuy defar euh, diwlin bi. waaw xam nga ñaata lañ. ñaata lañu. trois lañu. trois. Sonacos la. Sonacos. Copawo Copawo ak Waawo. ak Waawo. xam nga ñaata lañ soxla ñoom. Mm-hmm. cinquante mille tonnes. ah. ñoom rek ñoom ñett cent cinquante mille tonnes moom lañ soxla. waaw. xam nga ñaata lañu yor ci montant si xaalis mu nekk nii. 30 hmm. milliards. kese la ñu levé dafa ndànk rek dañ ne la ñu levé hmm. président ci discours am bii passé. Hmm. nee na daaw ci heure bii. moom moo wax de. moo wax kañ. heure bi ñu toll amoon nañu quatorze mille tonnes ci ñu soxla ñaata cent cinquante mille tonnes nee na heure bii amoon nañu. daaw quatorze mille tonnes. est que loolu président bu xelam bu xelam nekk. bu bëgg dina dina ñuy soxla cent cinquante waaw attends rek nga heure bi moo ko wax si ba déglul li mu wax ci 31 décembre. la waaw discours bi nee na discours bi nee na heure bi quatorze mille tonnes la amoon mais ñu ngi si quatre mille tonnes. dé <laughs> déglu de est-ce que dafa juum. non dafa ndànk nee heure bi c'est-à-dire imaginer président boobu cest heure bi daaw quatorze mille tonnes la amoon. mais ñu ngi ci quatorze mais quatre mille tonnes man nag ma lu li mu wax amul xam nga ñaata tonnes la ñu am. Hmm. deux mille tonnes. kese. man maa la wax li man et je fi tout ceux qui hmm. que ça soit le ministre que ça soit le président que ça soit moom Diagne Fada. kon mun nañu wax ne euh, campagne bi moom dafa laaj. ba pare ma wax non échec total. Hmm? fiasco la. campagne agricole bi. ba pare ma wax la benn parce que boo demee ay Saalum ak yooyu nawet bi bon na fa trop. waaw mais xaaral. non dama lay wax dama lay wax. Mm-hmm. sur les quarante six mille départ quarante quarante six départements. Mm-hmm. les trente six les trente cinq départements ñu ngi ci situation bu difficile de pauvreté bu grave xam nga loolu. Mm-hmm. fu mu nekk nii si réew mi. te lii moo ko indi. un état bi sax xam nga ne levé nañu taxe ñu doon teg si si gerte gi ñu doon exporté. bu dee gerte bu ñu bu am xott la quinze francs la woon. quinze la woon bu dee bu ñu xool li 40 la état supprimé na ko. lu pour faire plaisir au chinois loolu moo tax chinois yi di jëndee 250 wala 300 mu ko ñaxee jënd ko si 300. ñoom ñoo ñoo ubbil chinois yi yoon bi ñoo ñoo ko ubbil lii. après bu chinois yi ñëwee di jënd li may wax kay li may wax kay dama la ko wax dama ne la. dindi c'est-à-dire que supprimer nañu taxe li prix le le la taxe sur le produit arachidier. kon suñu état bi na ils sont dangereux. taxe à l'exportation. Mmh. du produit arachidier dindi nañ ko. amatul donc ñoom dañ koy exporter lu leen neexee. tu penses que ça sérieux. c'est pas sérieux. dafa mel ne Auchan ak sunu commerçant yi mais yow euro euro euro di ko jëndee CFA. un euro égale six cent cinquante francs waaw yow man may ñey yow ngay jinax ngay ñëw ni damooy fonto dama lay dóor nga daanu mm-hmm. li chinois yi yor franc ñu dañ ko am waaw xoolal euh, lu waxtu bi euh, waxtu bi xoj nañu te am na question bu am so yu am solo yu ma bëgg tamit ñu waxtaanee si mu nekk wàllum euh, kii grève bi nga mu gaaw rek grève enseignant yi nga xam ne fas yéene nañ leen ko def waaye CUSEMS ñoom ñu ngi fas yéene yënga-yëngal parce que dañoo jàpp ne état bu Sénégal yokk respecté wul préavis yi respecté préavis mm-hmm. Macky voulait coûte que coûte être lépp ni mu mënoon def lépp lu mu mënoon def nu mu mënoon convaincre Sénégalais yi pour faluwaat am deuxième mandat. kon ñooñ tam da leen a nax dafa diggee lu mu mënul mi ngoog. ok mbir mi yëpp xam nga lan dafa diggee lu mu mënul. kon su ma la déggee euh, on va vers une année scolaire bu mouvementée. non mu très très mouvementée. ndeysaan pauvre aux enfants. non non non non alors que ñun li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy li ñuy leb fi ñu koy dugal c'est pas productif. Euh, système sanitaire bi aussi euh, gis neen ñoom tamit ñu ngi yëngu-yëngal. c'est la santé qui est malade. Ouais. du temps où Abdou Diouf était au pouvoir. Mmh. un docteur percevait quatre-vingt-dix mille francs. c'est mm. aujourd'hui qu'un fonctionnaire que qu'un qu'un qu'un docteur au moins un docteur percevait quatre-vingt-dix mille francs Wade moo ko yóbbu. jusqu'à 600 000 aujourd'hui jusqu'à 800 000 maintenant tey jii ma lay wax situation bi ñuy dund que ça soit jigéen ñi amee cancer du sein de delà ñi amee cancer ñi amee dialyse ñii di sibiru jigéen ñi war a wasante wasante mais est-ce xam nga ni kit kit amatul xam kit mooy lan. Hmm? mooy blouse bi xoola blouse bi ak machine bi. ak gant bi ak mbaxane bi ak matériel bi nga xamante ne tey bu ñu war a def opération moom la ñu war a yor. fu mu nekk nii plateau médical moom. moom laa leen waxuma la sax mais dama ne la amu fa. te ministre bi nee na urgence yi moom kenn amatul droit. c'est-à-dire dafa bëgg a mettre en mal. les médecins les médecins avec les patients avec les patients. c'est-à-dire waaw mooy mooy comme ni la wax rek. Mhm. dañuy récupérer xaalis bi ci courant bi. Mhm. pour dimbali ñi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi gis nga ni ñun jéem a ji monter population yi. d'accord pour ñu diviser donc autant lañ ko war def mais nga am hôpital boo xamante ni cinquante milliards lañ ko tabaxee Macky Sall ngi tabax jeux ak terre. non attends attends waxuma la sa bopp jeux olympique bi. Mm-hmm. stade olympique bi mu bëgg a tabax. waaw loolu yëpp dinañ si à quarante milliards. ñëwaat parce que dama bëgg wax tamit ñu wax. waaw si ci euh, Lamine Diack bi. Ah, euh, waaw waaw Lamine Diack jugement bi gis neen euh, c'est reporté mu nekkoon euh, benn personnage boo xam ne il était clé la lutte pour kii Abdoulaye woon dalal jàmm wala wala wala wala waxtu bi moo xoj dama bëgg ñu nga dalal jàmm waaw dañ ko tabax mhm. te yéen xamu leen dalal jàmm mhm. dalal jàmm bii cinquante milliards lañ ko tabaxee dégg naa hôpital bu bakkane waaye amul médecin boo boo demee France mhm. ba gis seen hôpital yi nga ñëw dalal jàmm. dalal micro bi sa micro bi. tey boo demoon boo dem boo demee France. Mhm. nga gis foofu seen hôpitaux yi. Mhm. nga ñëw fii. Mhm. Euh, nga ñëw euh, euh, dalal jàmm. da naan est-ce que lii am na Sénégal te dalal jàmm Pikine Guédiawaye Tëngéej. ñëpp ak ñëpp non mënoon nañ ñëw foofu sa mais ñaar si ñaar rek la ñuy concentré ñun. ci Dantec ak principal mais xam nga lu tax ba léegi Macky Sall dafa ko. jalousie parce que Abdoulaye Wade moo ko def mais mais ñun ban réew lañ ne ñun ban kan la ñuy am président bu am ma yërmande kan la ñuy am président xol bu am xol bu rëy